Ousmane Sonko kooku moom poson moo raw poson Ousmane Sonko moo raw poson Ousmane Sonko moo raw amoniac Ousmane Sonko moo raw ay gaanuwaay Ousmane Sonko du référence koo xam ni loo wax ay kàcc la di sos di def di wax naka sa naka sa xandak pour doom

daanaa gis lépp lu ñu daan def ba waxtu julli jot danaa ko bàyyi dem julli ci kon nangul naa ko ni jullit biir la mm-hmm. lii leen yàlla dénk nag eh, yàlla na yan bi oyof toll ci ñoom ba seen yéene ci réew mi ñu matale ko daal maa ngi leen koy ñaanal ñoom kon de xanaa Ousmane Sonko Sonko Sonko série aji Sarr xam nga Ousmane Sonko danger public la danger public la te ni kaas Ousmane Sonko gi nga xamee ni moom moo dem seen beauté def fa lem fay def ba ni fa cur jiñ ko Macky Sall gis nga problème wu Adji Sarr beeg moom maa dégg ma benn laa ci wax nga ne Adji Sarr waxul dëgg ba ma ko waxee am na responsable euh, affaire bu ma woo ministre waaye dootu ma woo ah la ma ko ko dootu ma mais di fen rek fen rek parce que man loolu laaj gëm loolu laa gëm man leen yëpp jaru ay problème Adji Sarr leen jàmbur ah, mais nag nag yàlla yàlla fii la ko jaarale fii la ko bëggoon a jaarale te ma koy ñaan tamit su ko mën a jéggal mu jéggal Adji Sarr parce que jéggal na ko sax parce ci la bokk waaw dëgg yàlla nit la koo am na xalaat bi mais du du du jàpp mer parce que man nekk nañu cinq ans assemblée léegi juróomi at yoo xam ne dama ko daan tooñ sax léeg-léeg bu ñu mosaan a toog salle commission bi ma romb ko sànni ko xeer tooñ ko si mu réew mais nit ku baax la nit ku baax la daal ñoom daal yàlla na leen yàlla jàppale waaw fii nag dara dara dara ñorogo fi bañ koy màcc ñu ngi doog a ñëw nañ leen may temps ñoom mais di fen rek fen xam nga ni jomaay fay jomaay mii nga xamante ni mooy xaadim ku nekk ko woon daaw ci weeru koor wii ren yaay yaay yaay dem grande mosquée bay jiite fa comme chef de l'État mun la c'est pas vrai sonko sonko ëmb na rek laa déggul ci Sénégal Sonko ëmb na ma ngay jax te lekk laa Sonko ëmb na. laa déggut mais. vampire lak terroriste lak terroriste. ana te waa terroriste ah terroriste ba tay mo nek premier ministre kon terroriste premier ministre terroriste la ñor ak président terroriste. ah loolu moma jaaxal nag. wa ñu ko doon jiiñ naan ko ay terroriste la ak yoon ko terroriste la ray raykatu nit la. sama ben serigne man. momo moo. loolu la ay kilifa ñoo ñew ci mom di ko ñaanal ne ne mën nañ ko jox xaalis pour pour pour kenn du leen woo. pour ñu tëj seen gémmiñ. waaw pour ñu tëj seen gémmiñ. am na ci kilifa autorité ah, xam ña ngi dem moom. fi mu ne nii moom. ñu ngi boo boo oote woon Niger. Ah. ak Indo. Eh, te te dina bëri eh, te te te mais soo Sonko Diomaye mii ku leen xool xam ni ñaar ñi booy ay ay jantal booy lañ. man soxloo ma ci ñoom dara. mais gis nga discours président Diomaye bi bi ne bi li mu wax ci ñi nga xam ne dañoo yoroon ay postes. mais xam nga lu ma gën a yéem hmm. jamaay ku ñu yar la yalla na yàlla fa fana man damay bëgg di gis golo guy teral mak imam imam bi du ko nuyu mu do fekk ku ba pare di ko may loxu mu jox sama yaram dafa daw te daw ci waxtu wi amna lu imam bi waxon ah loolu moma jaaxal buñ dé mais yoy nañ bayyi mu jall nañ bayyi var rek di defal lepp mais du ko yëkëti ba pare da ko yëkëti ba pare muñ nga xamni kon nga xamni deug rek mo neex yalla ah. dañuy deug tay wax deug barke la ilaha illallah ak aljuma ji bi le soxlo ma ci ñom ñaari deureum nga ne ma am na sëriñ yu nekk ba Inde ñu ngi tëju gémmiñ. ah waaw waaye de fi mu boo kaala woon yor see bëjjën. salaam salaam gars yi sama mbokk yi bokk maa leen di nuyu di leen jaare bu baax a baax a baax ginnaaw bi ngeen seetaanee vidéo bi gis ngeen bu gazali ay waxu démbam ak ay waxi teyam dégg ngeen bu baax a baax li mu wax. gars yi maa leen di ñaan nag balaa ñuy xóotal ci vidéo bi dama leen di ñaan rek ngeen di abone di like vidéo bi di partager yaa ma gën a xam job bi ñëpp ñoo ko bokk quoi. comme daaw ni ma doon koy waxee ñoo bokk lu ñuy xeex ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk jëmu gaay li nga xam ne mooy bëgg a Zali nag moom lañ leen indiloon tey ay waxi démbam ak ay waxi teeram dégg ngeen bu baax a baax li nga xam ne loolu la wax bëgg a jàppoon nañ ko fi ci ay faux billets loolu ñëpp xam nañ ko ndax jàppoon nañ ko fi ci ay faux billets muy jéem a neexalaate quoi naan muy yàqu naa di proposer gars yi pour mu fay leen xaalis ñu bàyyi ko xam ngeen Sénégal nu mu tëddee quoi di leen jéem a guerre pour ñu bàyyi ko maam ak Sall lañ nekkoon dara fekk ko si te moom élément mag Sall la woon. tëj ñu ko kaso waaw dara fekk ko si quoi moom daal jàpp nañ ko ay faux billets bàyyi war nañ ko mu dem. waaw jamono boobu noonu Macky Sall moo fi nekkoon bu fekkoon ne ci jamono bi nga xam ne mooy jamono Bassirou Diomaye Faye du demee noonu képp koo xam ne bokk nga Pastef sax. luubal alalu askan wi wala ñu jàppale ci franc galatéri dañ lay defeere loolu moom amul waxaale quoi amul sax wérante bu gazali dañ ko waroon defeere sans ñu koy déglu muy expliquer wala leneen ak leneen quoi. moom prison moo nekkoon këram quoi ay faux billets xaalis bu bëri lañ ko jàppee woon ñu bàyyi ko quoi mu noonu noonu ci jamonoy mag Sall la woon ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr tamit dégg ngeen bu baax a baax li nga xam ne Bouga Sali waxoon na ko si moom lu nekk la wax Ousmane Sonko ci ay ci ay wax ju ñaaw quoi dégg ngeen bu baax a baax man duma si jaaraat dégg ngeen li mu wax Ousmane Sonko tey jii nii lan la waxaat nee na mosul wax ci dossier bi lu ñaaw mësul wax leneen ak leneen nee na dana woon dossier bi nii ay tuumaal la du dëgg Ousmane Sonko du def loolu loolu la wax tey ay waxi démbam nag ak ay waxi teyam dafa wute trop wute na trop loolu moo tax ñu leen di wëral gars yi nga xam ne ñoo fi nekk di fen rek seen waxi démb ak seen waxi bu wute quoi ci seen intérêt rek la ñuy dox ci seen intérêt rek la ñuy dox moom nag gis nañ ne moom jubóowul ak ki nga xam ne mooy rakku Macky Sall loolu la wax ci ay waxam man déglu naa vidéo nee nee mais nee na jubóowul ak moom ndax daf ko war dafa jël ay mbokkam beddi ki nga xam ne mooy Bougazelli loolu baax na ci yow ndax warkat nga waxkatu lu dëgg nga jiñ nga fi Ousmane Sonko zaaru jiñ bu nekk wax ko wax nga ko zaaru wax bu nekk te terewul ñun ñi nga xam ne ñoo gëm Ousmane Sonko ñoo ngi continuer di gëm Ousmane Sonko ba léegi kenn mënuñu génne kenn mënul génnee Ousmane Sonko ci suñu xol yi xas nañ ko bëgg xas nañ ko gëm dara mënul tax ñu bàyyi ko quoi loolu moom jarul sax ngeen di sonal seen bopp jarul sax ngeen di wiiri wiiri ñi nga xam xamaloon ñoo ko bañoon démb sax instant bii nii ñëw nañ si moom ndax bëgg-bëgg bañ Ousmane Sonko mo nek ko xamne ne dafa neex bëgg quoi xam nga nit bo xamne ne ci dëgg rek lay dox ci dëgg rek lay wax koku dafa neex bëgg quoi ndax dula la mus gis ngeen liñ ko fi jiñ yépp amul dara lo xamne ne ci si te lepp suñu borom feñal na ne li ngeen ko doon jiñ yépp du dëgg kon ki ni dafa neex a bëgg bu gazali nak comme nu muy waxee dafa melni mom dafa bëgg Ousmane Sonko loolu lay woné quoi démb li mu doon woné premier non Ousmane Sonko boko ko doon wax moy bëgg sali kon ay waxi démbam ak ay waxi tayam bokkul sa noonu démb nag bu la bëggee tey pexe moo jubul rek mais bu juboon billaahi du la mës a bëgg ñoom seen pexe bu juboon ba nii Ousmane Sonko sànku na bu yàgg yàlla mooy aar Ousmane Sonko moo tax li nga xam ne xew na tey yëpp xew Ousmane Sonko nekk na premier ministre fekkoon ne yaafus la wala ragal la wala tàppel la du ko nekk gis ngeen li lu mu daj depuis boobu léegi nii daj na fi lu nekk daj na fi loo xam ne bépp Sénégalais ñaanu sa doom daj loolu ñaanoo yow tamit ñaanoo daj loolu noonu affaire yi noonu la demee gars yi bu Gazali moo ngi noonu maa ngi leen di ñaan daal bu sali mi <laughs> am na ñoo xam ne sax xamuñu ko woon quoi ndax moom faralu di génn lu bëri comme ni ko gars yi di defee am na ñoo xam ne xamuñu woon bu Gazali am na ñoo xam ne ci problème phobie yi amoon la ko gars yi xamee am na ñoo xam ne ci problème mu tey jii nii gars yi commencé vaar bu Gazali ci lañ ko xamee waaw loolu dafa leer gars yi foofu lañ ko yemale bëgg naa ngeen di abonné di like bi gars yi bëgg naa leen bu baax a baax benen video. Jajab sama guys.